ay gi neex na mbacke cheikh fallo seigne ablay yow mel ni ci bima ma ci suwak tay gis nañ la nga taxaw am solo di joyante xale yi ci walu organisation mel ni lañ la farale bis bi ngeen organiser ko eh, mel ni fi ci Brescia nga fété yan kaddu nga yëkëti ci auditeur yi te auditeur yi nga xam ñu ngi déglu seen radio Touba singoña ak ñi eh, téwlu YouTube bi wala Facebook ñepp ngir jarignu ci li ballo fi ci euh, jotaay tay bi seigne Ablaye Diallo tafadal mashkura بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من min انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له hadiya ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma baad an maa ngi jaa maa ngi ziyaare yëpp te di jégglu yëpp di ñaan yëpp ñu jéggal ñi yàlla na suñu borom boolee jégal lu may jàkkawaat man balaa maa wax dara dama miinoo saa yu may waxee ma présenté sama bopp lu tax may présenté sama bopp mooy ab lay jàlloo laa tudd dëkk Guinée bi nekk Guinée Bissau dëkk Touba moo tax ma ne waa euh, dëkk gine nekk gine Bissau dëkk Touba damaa tuxu siwul maa nag nit sa sëriñ fu ma nekk rek foofu nga dëkk kon nag duma mën a nangu nee na dëkkuma Touba kon lu ma mën a wax kii liggéey bi jàkka sant rajo Singoña boole ko di leen ñaanal yàlla na lañ yàlla yóbbu kanam ki barke Sëñ Fallu man lu ma kii lu ma kiy denc taalibe yi rek di ko wax Euh, damay damay nekk rek di waxtaane sempre ki liggéey sëñ Tuubaa bi liggéey sëñ Tuubaa man lu ma ki xam lu ma ki mën a waxtaanee tuubi ak taalibe yi damaa xasul kenn maa damaa yaakaar ni euh, sénégalais yi dañoo am ba pare te xamuñu ku mu doon man foofu lay jàkkee man nag lu may sant suñu borom mooy lu tax sëñ Tuubaa baaxe ma boole ma ki njabootam lu tax ma boole ma ki njabootam man damaa nekkoon Guinée Bissau nekk ki dëkk àll yi xaw du ma fu nga xamee ni du ko dëgg sax sët Sëñ Tuubaa du ma ko dëgg ñëw ba moom mu boole ma ki njaboot Sëñ Tuubaa ñëw ba di nekk eh, Tuubaa mm-hmm. ñëw ba nekk ki fédération Sëñ Fallu ñëw ba nekk ki jamiya kër Sëñ Tuubaa bi boobu ñaa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax maa ngi ñaantan képp ku may déglu nga déglu ma ki sa xal rek nga xam ku nga xamee déggul olof bu baax mm-hmm. moo mooy wax ni maa nag lu tax may wax rek gën a sopp siñ fàllu rek moo tax may xiir di wax maa du affaire bëgg wax du dara xanaa dégguma olof bu baax rek ku may déggul rek nga dégglu ma ki xal lu ma bëgg a tettal taalibe yi ki fu ma jaar jaar la rek xam naa lépp lu ma gis ki yoon murit maa ngi koy denc maa ngi koy ñaanal taalibe yëpp gis lu mel noonu rawatina na sama mbokk yi ñi nga xamee ni ay saraxule lañ ay pul lañ parce que kii foofu laa bokk benn côté bi sama yaay saraxuli la sama papa pour la kon na dama bokku ki ñaari yi yëpp ma ngi ñaan sama mbokk yi yëpp tan di len xamal kan moy seigne touba nan la ko xame man Ablaye dial ben bi sant yalla moma moma bugulo seigne touba seigne touba bugal ma bopam indil ma ginaaw lolu nak soko ñewé nit du am dara sonul suñu borom moko jakk wax ki alcorane nee بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في كبد سكنا دوم آدم إليفوم الصنو كنا دوم آدم سفكي دنگا يصنو ننگا صنو كلو لجرين man na demaat dem ba gis ki yoon murit ñaari affaire bu nga xamee nii ma jàngoon ba dem ki université duma ko mën a jàng foofu ku dul nga dugg ki yoon murit boobu mooy lan benn bi dama bu ma duggee ki yoon murit yar a teggin bu ma ki am parce que man balaa maa nekk murit képp ku ma waxtaanal walla ma mën a xuloo ak yow maa lay jàkkadoor kon na loolu bu ma duggee ki yoon murit laa ko jël ba mu sët nañ sànni ki àll bi ma xam ndeke yar a teggin mooy yëpp loolu jàlle suñu borom nee na képp ku nga xamee nii dafa tallil sa sa am-am nga dugal ko ngir yàlla yaakaar naa xewal ba foofu la te loolu tan eh, man naa laa wax sama tàllil mën a joxe bu ma duggee ki yoon murit la boobu tan buntu ubbeeku bu nga xamee ni sama mbokk yi yëpp xam naa ni ñu ma xam te dëgg may wax fii ba gën a Bissau xam nañ ni bu ma duggee ki yoon murit la sama njëriñ gën a bari ki ñoom kon nag loolu tan ki yoon murit laa ko jànge amoon naa nag diine sama papa ay ilimaam lañ sama maam ay ilimaam lañ ba léegi sama rakk papa ay ilimaam lañ maanaam yii yi may jàngate nii ki yoon murid laa ko ame boole ko di bugg alxuraan di jaamu yàlla yëpp daanaa ko doon def maa di ko def ak xusuo ba kontaan mal naa laa wax ki yoon murid laa ko jànge kon lu may leen denc ki liggéeyal Sëñ Tuubaa dafa am njariñ liggéeyal Sëñ Tuubaa mooy liggéeyal yàlla te kenn mësumaa dégg bu ma déggee ki yoon murit ba léegi kenn mësumaa dëgg kuy liggéeyal Sëñ Tuubaa ba nee na sama morom yi Sëñ Tuubaa laa doon liggéeyal ba sama morom yi raw ma bu ma gisee tan nag bu ma duggee yoon murit ba léegi man damay nattali sama jaar ka jaar rek lu tax ma koy nattali mhm. damaa bëgg sama mbokk yi di ko dégg te xam ni Sëñ Tuubaa mooy kan parce que man damaa yaakaar ni eh, damay répété baat bi eh, Sénégalais yi dañoo xamul kan mooy Sëñ Eh, eh, lu ma bugg a wax foofu mooy jaar-jaar sama jaar-jaar man bu ma ñëwee kii Riyo bi fii boobu xaw ma kenn ñu boole ma a ñu nga xamee dañoo jógee Casamance nee na ñu ngi Piral Piral Pino Brescia bu ma demee foofu ma laa tase a sëñ eh, doom sëñ Touba ku ñuy wax sëñ Mourtala Mbakke mhm. boobaa maa ngi jógee nag problème bu rëy bu ma gisee mbooloo bi bugg a daw gaa yi nee nañ ma la fi nekk ma ne lu fi nekk nee nañ ma ah mbooloo bu fi nekk mbooloo bu bari la ma bugg a génn ma tase ab benn waaj ma laaj ko lu fi nekk nee na bu mag moo fi nekk ma ne ku mu doon nee na sëriñ Mourtala doom sëriñ Touba ma ne ak ah, kon xeewal ñëw na boobu nekk naa ki réew bi fii lu mot ay fukki fan ak juróom di jaay 15000 lira laa am bu ma ziyaare sëriñ Mourtala bu ma bëggee dem ziyaare sëriñ Mourtala dégguma benn baat jigéen ku ñuy tudd Wuli Mata Badiane te nekk soose moom laa wax damaa bëgg a dem ziyaare sëñ bi lan lay wax nee na lan nga bëgg a wax ma ko jam ak xewal a milliard ak gudd fan a teg ko ki siraatal mustaqim hmm. mu wax ma ko ma bindi ko ki sama loxo fi bu ma ñëwee kii résidence pirate bi bëgg a ziyaare sëñ bi bu ma déparé soxna si nee na ma am nga lu ngay ziyaare ma ne waaw waaw nee xaaral ma jox la ma ne déedéet am na lu ma yoral sama bopp hmm. sama 15 euros boobu laa jël yëkkati ki 1200 liira hmm. mooy billet car suba pour ma xëy ma jëlaat li ki des yëpp ma def ci sama loxo dem ziyaare sëñ Murta euh, sëñ Murtala bu ma st gars yi nee neen sëñ Murtala mu ngi war a waaj a jox kenn du ko mën a ziyaare ma ne leen ku ma jàpp ma door gars yi yaakaar saa ay assassinu la nee nañ ah mbaa yorul paaka ñun tan pour lii paaka la ñuy dégg papa paaka la ñuy waxee ma yaakaar gaa yi wóoluñu ma dañ maa escorté ba ma jub sëñ bii rek ma toog bu ma ziyaare sëñ bii jox ko loxo daal di xool fu ma bindoon ki sama loxo bi ma ma jaaraat ki baat yooyu ma waxoon jàmm ak xewal amiliya ak gudd fan ate ko ki siraatal mustaqim bu ma xoolee sëñ bi laser lu mel ni laser jóge ki bot sëñ bi def direct ki sa bot sama bot ba dugg ki sama biir ba ma ba may yeeg mel ni ku wannu dara mooy dem ki sama biir boobu damaa ruus saafara daal di segg xoolatuma ko moo jaar ñaanal ma ñaanal mbooloo bi daal di jóg dem ci àllak si ma xëy dem jaay ma jaay soixante mille lira oh. may gaay yi may may ñu may jaayandoo ma leen di wax man saa yu may demee jaay damay jaay soixante mille sëñ Mourtala bi moo ma ko ñaanaloon ba bis ni ki tey sama jëroon sama saak yi génn fii damay jaay soixante mille sëñ Mourtala bi ma ma bàyyi jaay jaay naa fii nag ay fukki at ak juróom fii ki Italie mosuma dem jaay jaayu ma soixante mille sëñ Mourtala yi kon nag maa ngi jégul bu baax a baax kàddo yi gudd nañ lool maa nag déedéet du damaa yëg damaa am sama yëgil rek murit moo tax ma wax lii eh, maa ngi leen jéglu di leen gërëm xam naa wax bii dégg na comme dégguma olof bu baax a baax maa ngi leen ziyaara di leen gërëm di leen jéglu di leen ñaanal ki kastu rajo bi itam nag yàlla dafa ma eh, teral lan mooy teral nga nekk ki Brescia ngay yëngu ki Sëriñ fàllu ba kastu rajo ñëw fii su ma la nattali rek saal bi nuñ ko amee rek dangay ngay waaru Brescia saal bu mel nii mosuñu koo am musuñu koo gis saal bi yàgg fii kenn musu koo gis nopp fii ñu war ko ba sonn kenn musu koo gis ñuy wut ay feera di fay ay dix mille lira et dix millions di dix mille euros neuf mille euros di fay feera ba ñu waja waaj a def Kazu Rajab amuñu feera bi ñu am feera Montichiari dëkk bi fii ñoom nee nañu neuf mille euros la ñu war a fay ma ne leen ah loolu seerul ñu tegal ma su fekkee aljuma la saa duma la ko mën a jox man leen kon nag ñu ngi jégalu. Mhm. nañ ko bay sama jawrin daam gay nee na ma a ah, Ablaye yaa fi sas ma ne ki lan laa man nee nga fexe sëñ Abu sëñ Falilu dégg ko. Mhm. ma ne ko ah, loolu kay suba incha allah bu ma xëyee woo sëñ bi wax xamal ko ko nee na da ngeen koy am te du ngeen sonn. ma xëy dem monti ki yaari fi yóbbu sama doom di jàng bu may ñëw soxna si ma ànda soxna si nee na ma dem ngay xool saal bi ma ne ko saal bi xëccoro kastorojo def kii xëj nee na dangaa dem kibir ma ko déedéet ah kon suba ma dem ci fii waaw ma ñëw fii esti fi waxtaanee ah, borom saal bi mu nga xam ne beneen saal bu bu jàkkaaroo moom da koy gis foofu kooku di may lay tey la suba la tey la suba fu ma taxaw noo di xaar rendez-vous rek daal gis saal bi ma ñaar ma jaar fii di ko laaj ndaw si benn ndaw laa tase fii mu may wax loo ki soxla ma ne loué ma xool ma suuf aj ah, ba ci kaw ba suuf nee na ma da ngay loué bi ma ne ko waaw mu jox ma numéro directeur bi ma woo ko mu ñëw ma laaj ko mu wax ma waaw ma wax ko bi yëpp nee na aljuma ya samedi. boo ko jox boo ko buggee naa la ko jox ma ne ko bisimilah nee na xeeñ nga fii ma ne ko sama mbooloo xeeñ na fi léegi lu fi des ñu waxtaane prix nee na ma léegi yëpp a a lépp lu war a doon naa la ko defal huit mille euros ma ne ko daggal yëpp nga defal ma ko cinq mille euros ñu jël saal bi mu dagg ko yëpp def ko cinq mille euros jox ñu waañ jox ñu yëpp nekk taalibe lépp lu ñu bugga suñu yaakaaree lii duñ ko suñ ko waxee day bañ suñ ko waxee rek mu wax bisimilah. ñëw leen waaj mu ngi ci biir yëpp mu ngi ci biir fii dara du ñu dem wut moo ñu taxawal taxawaale boo xam ne kenn mënu koo xam nu mu demee ba Kazu bi jaar yoon fu mu ne nii gars yi ñu ngi doxal ñu ngi jàng xasaayid ñu ngi jàng jàng nañ kaamil yu bare fii tey ngir Sëñ Fallu kon nag loolu ay firnde la moom lay wax Sëñ Fallu teral ma mm-hmm. ñëw ba Touba Singoña Touba Bergamo Touba Lecco Touba Brescia jox ma kàddu may waxee ki kàddu fédération bi kon na loolu du ki tuuti ki man asalaamualeykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu maa ngi jégalu yëpp di gërëm fam nga jumaa ji yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariqul ay alaaji fàllo yaay rasulullahi jam nga fa makka fam nga ni lilaay alaaji yaa juboog lilaay am nga ngëneeli yàlla hubbulaahi fam nga ngëneeli bamba hamdulaahi sariyatu aqiiqatul iimaan alaaji Fallu